léegi xaaral ma ñëw ci papa papa actuellement gis nga diggante dër bi parcelle ak Pikine bëri ngeen keroog gis naa la sax ba nga ñëwee arène arène nationale mais dafa mel ni papa beneen papa Sow laa gis xale yi bu ñuy bëree nan ngay def waaw mais c'est normal c'est normal maa ngi nuyu ñëpp ah di nuyu internet yëpp di leen jaajëfal nag tamit quoi waaw mais c'est normal làmb moo toll foofu tey jii ba waa parcelle gis naa keroog booy jël ni ko gars yi keroog vidéo mu def macha allah mais nañ xam ne ñoom ñoom bu ci ëppale Hmm. le 14 out parcelle kenn du des diggante parcelle Cambérène Grand Médine Patte d'Oie ba Yoff boo yëpp dañuy mobiliser ñëw incha allah soutenir sa waay. Hmm. waaw bi moom mooy lool mooy mooy tëj bi. combat bi sama fils mooy tëj. te daa mel ni caabi bi parcelle da ko yoroon mais daa réer Pikine. non keroog keroog nu mu fa jëlee keroog deux un nu de ah. waaw kon ñoo yor caabi ji de. ba tey rappelé leen def la 14 incha allah. Ah, kan kan dina xeex non man ko dama ne Boy la yokk xeexam laa wax Boy Jules jub moom combat bi day xeex moom moom combat moom jàppale moom bëgg xeex bañ xeex bëgg xeex bañ xeex ba taw jël di am di ko ñaan di ko ñaan ndam nag boobu yarul la nit ku disponible la hmm. ku neex a nekkal la macha allah hmm. lan nga wax waa Pikine ñu lay ñu ngi lay seetaan waaw ñu def mobilisation rek te comme combat franc ak soq ni mu neexee hmm. combat soq deux ak amérdoo gis ni mu neexee daam seen tonnerre bi mooy dàq waaw mooy bi mooy tëj mooy dàq ñëppay ñëw parcelle ji kenn du des champion ñëppay ñëw ànd ak suñu gars indi leen incha allah rabbi loolu moom kenn du manqué ba cambré na ñëpp nag waaw ba ba fajaa kenn du manqué ñëppay ñëw allah jum ñu ngi jaajëfal